bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa xabibina wa shafiicina wa maulana muhammad ibni abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwati al aizza samahata shuyuux maali al ulama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 yal na nu yàlla gën a sàmmal boppam yal na nu yàlla gën a aaral boppam bi jaay sayyidil wujud wa alami shuhud ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ñëpp di baru ñëpp àq di nuyoo ko sant ak a gërëm sunu mbokki sponsor yi nga xam ni ñoo sopp rajo bi bëgg rajo bi di fi duwal seen ñaq di ànd ak ñoom ci seen programme concept émission yëpp baarakallah euh, commerçant yu bari wóolu seen rajo di ci dugal seen ñaq ngir seen marchandise mën a dox ñuy ñaan sunu borom mi nga xam ne moom rek moo man moom rek moo am yal nañu yàlla rus ci yéen ba li ngeen fi seetloo ba indi fi seen yëgle yal na ngeen ko gis yal ngeen am chiffre d'affaires yu yaatoo yaatu te barkeel te yokk yàlla sañ na ko mën na ko yal nañu ko yàlla defal di nuyu bu baax sunu jigéen la grande soxna Aïchatou Kayra yal yàlla lafal ko cet te bàyyikook kook sagoom bàyyi xelam moom mi dox suñu digganteeg yéen di nuyu yaayam magam soxna Daado Faye madame Diagne barakallahu ak mboolem ñi nga xam ñooy jàpp ci liggéey bi eh, service commercial secrétariat ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax liggéey bi du liggéeyu kenn nit ñëpp ciy jàpp jërë ngeen jëf yal yàlla barkeel leen yal yàlla barkeel leen yal na yàlla barkeel leen mbokk yi waxtu wi démb bi ñuy tàqalikoo ak yéen ñu ngi woon ak yéen ci waqaatul huday bi xam ngeen ni sang bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamee dem na ba toog huday bi te waa Quraysh di yónnee ay ndaw rek ngir empêcher ko ak bañ koo bañ mu dugg màkka ndaw lu ndawul jinne rek yónnee nañu ko ci moom ngir rek bu mu fa dugg moom daal ak lu mën a xew daal bu mu fi dugg sang bi toog na ba yàgg mu ni xaaral ma itam ma yónnee ambassadeur mu yóbbu sama kàddu ma wax ak ñoom lenn rek moo mën a am ñu wax ma lu concret lu tegu mbaa sama borom jubbanti ma wala mu orienté ma mbaa ma jaamaar la ñoom ndax képp ku ma tee dox tey ca suufu kaaba ga maa ngi ma àndal danaa xeex ak yow adi woo Omar ibnul Xataab radiyallahu taala ni ko Omar kaay nga demal ma ci waa Quraysh boo demee nga ni leen sang bi alayhi salaatu wasalaam moo ma yónni xeex si wu ma xëccoo si wu ma wut si wu ma tur dara indi wu ma fi lu may màggal néegu borom bi subhaanahu wa taala ak def li nga xamante ni mooy sama umra moo ma fi indi bañ naa ba yoruma ngànnaay yoruma dara waaye Omar ibnu Xattaab nekk nit ku dëggu wax naa la démb ni mu nekkee woon nit ku dëgg daal di woo sang bi ni sa stratégie la walla sa choix la walla sa borom moo la ko wax munu ko sama xalaat la rek sama xel dem ci yow waaye lu nekkul yàlla wax ni naa ko def Omar ni ko kon nag man li ma gis mooy nga yónni woon Ousmane ibn Affan mu dem ndax man xam nga ni awma fa mel mbokk awma fa mel na mbokk te ba may gàddaay di jógee Makka di ñëw Medina wax ja ma leen waxoon ba léegi ma ngay tàkk te du fay mën na am seen mer gën a yokk ci man lañu leen def badar seen xol ma nga cay tàng ba léegi lañ leen leen def Uhud jaloore ji ñu dégg suñu digganteeg yahud yi mën na am ma dem fa seen mer wala seytaane xiir leen ci man ñu dal ci sama kaw te bu boobaa aw benn mbokk mu ma mën a jàppale mbaa mën a duggee këram mbaa mbaa kon nag dama xalaatoon teenoo yónni Ousmane mii nga xam ni moom ay mbokkam a nga fa ñoom buñ ko fa naree def dara ay mbokkam danañ ko jàppale yaakaar naa daal Ousmane daal moo gënoon a am sécurité pour ñu yón ñu yónni ko sàngi bi alayhi salaam ni ko waaw kañ Omar daal sa xalaat bi rafet na te ànd naa ci ak yow daal di woo Ousmane ibnu Affan ni ko boo demee nga waxal ma waa Quraysh ni leen xeex siwu ma xuloo siwu ma xëccoo siwu ma wut siwu ma daraja wut siwu ma ndomba tànk néegu sama borom bii nga xamante nii yàlla ko fi wàccee moom laa bëgg a wër si tawaaf si def sama umra looloo ma tax a jóg waaye dara taxumaa jóg suñu ma bañalee loolu nag na leen wóor ni bettuma leen maa ngi ci seen kaw moo tax ñu ni wa xiina isin araada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yabaafa safiran yuakkidu lada quraish mawqifahu wa hadafahu min haza al safar fa daa umar bnu alxataab li yursilahu ilayhim fa atazara qailan ya rasul allah laysa lii bi makka ahad min bani kaab yaxdabu li in uzitu fa arsil usmaan bna affan fa inna ashiratahu biya wa innahu muballiqun ma aradta fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam usmaan bna affan wa arsalahu ila quraysh wa qaala axbirhum ana lam naati li qitaalin wa innama jinaa muctamirin wad'uhum ila islaam wa amurhum an ya'tiya rijalun bi makka muminina wa nisa'in muminatin fa bashirhum bil fathi ba ngoog mu ne ko boo demee nga wax ak ñoom boo waxee ak waa Quraysh ba pare na nga wëlbatiku jàkkaarloo ak jullit ya fa nekk di ay néew ji doole te leen di lor nga waxtaan ak jigéen ña fa nekk ñuy ay néew ji doole dañ leen di lor nga ne leen yonente yàlla bi nee na ngeen muñ te fas te pasteefu maanaam muñ leen te dogu incha allah balaa yàggati léegi yàlla dinañu indil ubbite gu jege jege jege boo xamante ni ñoom ñëpp daan ci gis seen bopp incha allah bégal leen rek neen yàggatul dara yàggul léegi ñu bég incha allah wa yuxbiruhum bi anna allaha azza wa jalla muzhirun diinahu bi makka xatta laa yaxfa laa yastaxfa fiiha ahadun bil iman nee leen sunu borom dina dooleel lislaamam bi dina dooleel diineem ji ci Makka bam lii ji am fi doole ba kenn ci ñoom dootul nëbbu ak ngëmam dina ko fësal fàng ni ba bëccëg wala boog jantu bëccëg fantalaqa Usmaan xatta marra ala quraychin bi baldaxin fa qaalu ayna turid qaal baasani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaza wa kaza Ousmane rëppatal fasam rëppatal fasam ba mu agsiw ca Quraysh ñoom ñépp ñu taxaw ñu xool di ko xaar ba mu ne deret ak fasam ak hayba bi ak personnalité bi ñu ne ko lan nga bëgg xam nañu ko lan nga bëgg luy sa tànk omar ni ko baasani rasulullahi ndawal yàlla li yonente bi yàlla bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ma lu ma wax nee na xeex siwul xuloo siwul dara bëggu fi dara yuutuwu fi dara néegu yàlla bii moo ko tax a jóg day def si umra képp bañ na ko ngànnaay lii la leen bëggoon xamal su ngeen ko ko teree def nag bettu leen mi ngi seen kaw xaaloo ñoom ñëpp ñu la ni ka ma taquul dégg nañu li nga wax léegi nag noppalul wàccee fas wi te dal fan xasal li xaajatika wa qaama ilayhi ibaan ibnu said ibnu al aas fa raxiba bihi summa asraja farasahu fa xamala usmaan alal faras wa jaawarahu wa ardafahu xatta jaa makka wa ballaxa risalata ila zuamai quraish yeneen ndeysaan benn saxaabi bu ñu wax ibaan ibnu saïd moo ni ko eskay sama mbokk ay waaye Ousmane namm naa la naa yaa ngi nii aksil sànni sa sa yetu xare fii doo fi xeex kenn maa la garante maa lay waral ci sama fas wëree la dëkk bi ñi nga namoon ñëpp nga gis leen ñëpp gis ñu xam ne yow yaa ngi dara jotu la kontaan ci moom lool moom Saïd ibnu Asmi mu woomat fas Ousmane war na di wëre moom dëkk bi ndeysaan ñëw moom ba ci kilifa yu Quraysh yi kàccoor yu bon yooyu nga xam ni Abi Sufyaan abu lahabin abu lahab sax moom dee na bu yàgg ca dee yu jëkk yi ndax moom xare badar la dee woon deewoon sax ca xawar ca xare ba abu lahab bi tax tabbat ya daa wàcc moom sax fekkewul lii ndax moom coxor ak mbon moo ko daloon ba ñuy jógee ba ñuy dem xare badar dafa ne mënul dem ndax yaramam neexul waaye dinaa fay nit ku ma demal ndax wuute xare bi wóorul benn waaye ni ko man dey dama amee ay bor yu ma mënta fay moo tax sama ngor ci biir Makka yombul ndax fu ma na gis boroom te duma wax dara boo ma ne de ma demal la mu ne ko dinaa la fayal say bor dinaa gaaran sa dundu njaboot te même boo fa dee itam xale yi ndaw yi dina leen garanti ba ñu màgg ba majeur bu dina la ko fayal mu ni ko kon nag baax na kooka la fay mu demal ko waaye ndeysaan ndeke ku deewul ci xare rek dee ci kaw lal ba mu yëgee ni Abu Jahlin dee na ca Badar Umayya dee na xal Umayyatul Xalaf dee na Ubay dee na fa ñu baree bare dee na fa ca la ko benn feebar dugg nag feebar bu bon moom tam feebar boobu moo ko yóbbu matu sax ñetti fan moom tam moom tam toppi leen ànd ñoom ca safara waaye Saïd mii Ibnul As bu mu ñëwee ci Abi ànd ci ak yeneen i kàccoor osmaan ñëw toog wax leen li ko sang bi yónni fa lamma faraga aradu alayhi an yatuufa al an yatuufa bil bayt bi mu waxtaanee ñoom ba pare ñu ne ko yow nag mbokk nga dañu bëggoon ko nga dem wër kaaba gi nammanti koog moom def li nga bëgg a def ñu doo nga may ñu en attendant ñu gisee ci sunu biir nee na rafada usman haza al wa aba an yatuuf xata yatuufa rasulullahi sallallahu sallam <clears throat> usman ni leen déedéet kaaba goo xamante ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko bëgg a wër te wëragu ko usman amul xaajo ci jéem koo wër mbétadu sang bi da ko wër ba pare usman dóor koo wër loolu daal moom laa bëgg kaaba gi daal du ma ko wër mukk te sang bi wëru ko ba pare ñoom nag ñu daay gane la Ousmane seen concertation yàgg ñuy xalaat ka wax lu ñu war a def wax ja gudd débat ba gudd téléphone amul ndaw ñëwul ci diggante bi jullit yaa nga toog rek di xaar gisuñu Ousmane séenuñu Ousmane ay ndekete rumeur yàgg ci àdduna bi riimoor yi commencé daw usmaan Ba rey ñu ko yee Ousmane daa mel lañ ko rey de ñii ay kàccoor lañu de ñii ay saay-saay lañu de baax na dañ koo rey de nee na waxta basathu quraysh innaha wa laallahum araadu an yatashaawaru fi ma baynahum fi lwadci raahin ndekete yàgg gi nga xamante ne moom la waa quraysh yàgg di diisoo moo waral eh, Usmaan ñëwul yabaramu amrahum suma yaraddu usmaan bi jawaabin maa jaa bihi min risala wa taala al ixtibaas fa shaa bayna al muslimina anna usmaan qutil julit yépp nag daan ni usmaan rey nañ ko usmaan rey nañ ko usmaan rey nañ ko ba mu demee ba léegi ñëwul kenn xamul moom dara kon dañ ko rey ñii ay kaccoor lañu ñii saay saay lañu xaj yu bon lañu kon nag booy boo ñu wax ji lay siiw wax ji lay siiw ba mu dugg ci nopp yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi lama balaqathu tilka al ishaara nabra xata xata nunaajisa nunaajisa al qawm Ousmane dañu ma war ci moom ngeen ni dañu ma war ci Ousmane waa Quraysh dañu rey Ousmane giñ naa ci yàlla mi ma yónni giñ naa ci ki nga xamante ne sama bakkan mi ngi ci loxoom waa Quraysh bu ñu rey Ousmane dénk dina sax kawar foofu la ñu waroon démb nag dénkul na sax karaw mu ne ko bu ñu ko bu ñu ko reyee dénk dina sax kawar dinaa jëflante ñoom jëflante bu tàng te daan te daañu ko rëcc ñeme wuñ ko sax xalaatuñ ko sax bis bu ñu reyee Ousmane dénk sax kawar dénk sax kawar laa ilaha illa allah allahu akbar moo tax ndeysaan sang bi alayhi salaatu ku bari woon yërmande la ku xàmmee la woon ku xam aw askanam la woon waaye ku xam xeetam la radiyallahu taala anhu wala sallallahu alayhi wa sallam nee na fa daa ashaabahu ila albayati fa saaruu ilayhi yubaayicuunahu ala an laa yafirruu wa baayaathu jamaatun jamaatun alal muminin nee na ñoom ñëpp mu woo leen daa dem toog ci taatu garab ga garab ga mu ngi tudd samura garab ga garab ga samura tudd saaru aloom la wala boog olive wala nangam nangam waaye garab gu sëqoon la gu guur mag a mag a mag sang bi wéeru ca ca reen ya wéeru ca dattub garab ga ni leen ñu leen ñu bàyyi ñu leen ñu jaayante fi maag yéen bu kenn daw bu kenn buqat ñii dañ ñu yàpp te bu fekkee li ngeen wax te jortu ko moom la dund amatul njëriñ ci sunu ci sunu biir mu ne wa awalu man baayaahu abo sinaan al asadi ki jëkk jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi mooy ku ñu wax abo sinaan abo sinaan al asadi moo jëkk jaayante yonente bi salaam wa baayaahu salamatu bnu akwaan alal mawti salasan am na benn saxaabi yi bu ñu wax salamatu ibnul akwaan bàyyi jaayante nag yonent bi sallallahu ñetti yoon saa wiiree rek ñëwaat ni ko baayaatu ko yaa rasulallah ja maa ngi jaayante jaw sama bakkan dina fi des mbaa lislaam am doole mbaa ñu ubbi màkk ñetti yoon def na ko ndeysaan fi awwali naas wa wasatuhum wa axiruhum moo mooy Abu Sinaan nee na waxasa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi yadi bi yadi nafsihi mu daal di yëkkati loxo boppam loxo càmmoñu boppam wa mu daal ni haasihi an Ousmane sama loxo càmmoñ bi moo représenté jëmmi Ousmane sama loxo ndeyjoor bi mooy jaayante ak moom kon jaayante wàlle naal Ousmane nit ñi di jaayante nit ñi di jaayante nit ñi di jaayante waaye wa lamma tammatil bayatu jaa usmaan fa baayaahu wa lam yataqallaf an haadihi al bay'a illa min al yuqaalu lahu jund bnu qays nee na jaayante bi lu muy bëri bëri bëri bëri bëri a ngi jaayante ba mu des benn naafiq boo xamante nii moom ba mu déggee umra dégg ci ay bitin ak yu ñu war a mën a am dafa ñëw raaxaloo ci biir jullit yi ni jullit la ni day dem ca umra raja ngir dañ ko baag ay mbokkam yu mu fa amoon ak ay xarit yu mu namoon wala lu war a ruus ci yoon lu mu ci mën a lu mu ci mën a am xam nga kook nu mu tudd mi ngi tudd Jadd ibnu Qays waaw nu ibnu Qays boobu ndeysaan mu ne léeg-léeg mu ñu ci yoon bi rek sëgg ci noppam ni ko am na la si sukkira min amri Ousmane baatil ah Ousmane de li ñu wax ci moom sang bi du dëgg de rey ñu ko de waaye du woon dëgg gu mu xam waaw ragal rek ak nekk naafiq ndax tam ku sama yëpp jar béy soo jarul béy njëgu béy nga lu ko tee jaayant rek la mu la la ñëpp mu jëm benn côté yow ngay nga nga signalé gauche loolu ku koy def ko nag ca mbooloo naafiq rek la ñu mën a tudde mbooloo boo ca àndee su ñëpp xalaatee lenn dëgg la pour mën a bañ a séparer groupe bi dangay ngay da ngay am esprit de groupe. la nga xam bu dee képp yaa ko xamul yow danga yaa ko nar a wax dangay indi wuute da indi wuute te indi wuute amul solo wuute baaxul yonent bi nee na képp kuy séparer jullit yi rey leen ko nit ñëpp taxaw ni lii la nga ni du loolu te jubloo ci may jax-jax leeg wut ak daraja ak wut nañ ko xoolal bu baax loolu nañ ko xoolal bu baax ah. moom daal mooy loolu moo ah, Abu Sinaan moom ba mu jaayee ba pare Jadd ibnu Qays daal di jaayante moom ja ibnu Qays mi jaayantewul axasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haadihi lbaya taxta shajara nee na yonent bi sallam nag door a dem nag suufu garab ga garab gi naan samura wa kaana Omar axasa bi yadihi wa muaqal bayna yasaarihi mook yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loxoom jaayante ak moom beneen saxaabi ñox mu àqil ibnu yasaar moom dañ daal jàpp ci mbubbum yonent bi sallallahu alayhi jàpp ci suufu garab gi jàpp ci xobi garab gi ndeysaan ñëw tiimale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ceri garab gi ndeysaan nee na haasihi hiya bayatu ridwan bayaatu ridwaan bi ngay dégg ci lislaam lii moo doon bayaatu ridwaan lii moo doon bayaatu ridwaan nee na anzalallahu fiiha eh, yàlla wàccee na ci jaayante bi yàlla wàccee na ci aaya ju gudd ci suratul fatxi bismillahi irrahmani irrahim laqad radiya an almuminin is yubaayicuunaka taxta shajara fa alima maa fi quluubihim fa anzala sakinata alayhim wa asaabahum fatxan qariba sadaqallaahu l-aziim sunu borom subhaanahu wa taala sunu borom subhaanahu wa taala nee na billaahi gis nga laa mu xasam ak xadu xadu ak xadu taxqiiq alaaji bu saaxu ndeysaan bor gi ma déggoon grand-mère alaaji bu saaxu seetet mu ne laamu kasam ak xaduk taxqiq laam gi la xat mooy billaahi nga indi xatuk taxqiq mooy dëggal li ma wax billaahi dinaa la dinaa la ko def ba mu saf sap xam nga loolu wax jooju wax ju wax wax ju dëgër la billaahi doyoon na nga ni ko dinaa la ko def ba mu saf sap bo boo ne woon woon billaahi sax te que naa la ko def mu saf sap ku xam wax dana xam ne yow mii kafoo moo ne ne radiyallahu anil muminin naa suñu borom billaahi ci sama màgg ci sama daraja gërëm naa way gëm ya muy julit ya is yu bàyyiwunaka ba ñu àttanee jaayanteeg yow taxta shajara ca suufu garab ga te ba ñuy jaayantee yow fa alima maa fi qulubihim yàlla xam na li ci seen xol ngëm gu mat sëkk lañ ko booleel ak pasteef ak dogu nee fa anzala sakinata mën yàlla ma mujj wàccee dal sakina alaaji maay njaay laayam jaa ngi nii sakina mbay sakina laa bëgg sakina <laughs> ali alaaji maay njaay sa sa laay jaa ngi nii suratul fatax fa anzala sakinata nee yàlla wàcce dal dal nooy na nooy macha allah fan la ko wàccee alayhim ca jullit ya nu yàlla mu def fa asaabahum mu mujj leen ndàmpaaye fatxan qariban ubbi makka ubbi gu jege goo xam ne nii ñoom ñëpp gis nañu ni ah mi ngi ci seen kanam iza jaa nasrullahi wal fatxu waa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillaahi afwaajan fa sabbix bi hamdi rabbika wastaxfiru innahu kaana tawaaba baarakallah sadaqallahu aziim waaye àgguñu foofu ndax lii dafa am lu muy junj mooy fatxu lay junj yonent bi sallallahu toog na ca këru garab ga mu ne wa arafat qurayshun xarajatu lmawqif fa asraat ila bisi suhayl bnu amr wala eh, li li li li aqdi sulxi wa akadat lahu an laa yakuna fi sulxi illa an yarjica anna caamuhu haza laa tataxaddas alcarabu anna annahu daxalaha calayna cunuutan abadan nee na waa Quraysh waxtaan nañu ba jubo waa Quraysh waxtaan nañu ba d'accord jël nañu seen décision ba jël nanu benn waay bu nekk ci ñoom ku ñu wax Suhayl ibn Amr boole ko ak Usmaan ibn Affan ni ko demal boo demee nga yóbbu accord bii gis nga kon nanu ko def cu nekk nanu ko wax lay jëkkee gis nga waa Quraysh lu ñu bon bon lu ñuy yées yées fexe nañu ba ñoom ñu ngay ànd jullit itam li ñuy baax baax baax ànd ak ki leen yonent bi sala ki yàlla booleel mu yonent bi alayhi salaatu moo moom du def dara te du du diisoo ñoom gis nga dictature moo bon mooy yow kepp tëju sa néeg di boroom kër gi doo tàggoo looy dugg kenn du ko yëg di jaay maandu nii pat ba xëy dugal sa bopp ci musiba mu mënta génn loolu dinay am léeg-léeg ngi borom kër goo xamante ni day dugg day dugg ci ay dugalante dugg ci ay ay di kartaka lu ne mu koy def ba ñu xëy gañe këram wala ñu gañe kayitu këram mbaamu tey la kayitu këram ah da ngay jékki rek huissier ñëw leen seen bàyyi jaay na kër gi mbaa nanga ma nanga fekk carte ak dugalante nëbbu sa njaboot mooy yóbbu nit ki ci yu baree baree baree bare ki daal soo amee njaboot ma sa njaboot waaye sa soxna rek bokk na ci nawloo sa soxna mooy diisoog moom koy jëflanteel na ko xam looy séq ak nit ki na ko xam ngay informer sa njaboot ñu xam lu xew ndax nit daa moomulug ak dundam xamoo kañ la xamoo nan la xamoo fan la yàlla moom jaamam saa wu ko neexee jël waaye di nëbbu sa njaboot di dugg ci àll bi bala ngay di génn kër gi fajar lay doon bala ngay dugg xale yi nelaw kenn du la xamal dara ndogalu yàlla am ci diggante bi nga wàccu liggéey ay nit ñëw teg loxo ci kër gi say doom di taxawaalu say njaboot di taxawaalu loolu dara jaru ko moo tax dictateur baaxul ci dara dañu ko natt foofu rek waaye tamit ci côté yëpp nag njiitu réew njiitu directeur de société euh, transporteur lépp ba ci njaay lu mu ci mën a doon bala ngay jaay waxtaanal ak nit ñi bala ngay jënd waxtaanal ak nit ñi lu mu ci mën a doon laaj teel oto sax bala nga jënd jëlal carte grise bi yóbbu ko ñu xool ba xam oto bi valable na wala valable balul looy def nga door ka cee def gis nga diisoo dafa baax moo tax maa xaaba manista shaara maa nadiba manista xoora waaw ma ngoog waa qurayshin yabal nañu suhayl ibnu amr nee na fa ataahu suhayl ibnu amr fa lamma ra'aahu alayhi salaam qaal laqad sahula lakum amrukum araada alqawmu sulh xiina baasu haza rajul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi ay kéemtaan yu bare bare bare waaye nag na ngeen jàngat ndaka mu seen suhaylu ibnu amru mi dafa ne yàlla yombalal na seen mbir léegi nag yéen ñëpp li leen jaaxaloon yàlla yombalal na këree Suhayl mooy Suhayl ibnu Amr sahlu ci arab mooy lu yomb marhaban ahlan wa sahlan waaw Suhayl bienvenue tout est possible bismillah mu ne sahlal lakum amrukum seen mbir yomb na jàppandal na waa Quraysh bëgg nañu yéwénoo ak yéen ba ñu àttane yónni kii ñuy wax Suhayl ibn Amr waaw maa ngi wax léegi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam na kéemtaan naka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën seen kee di ñëw mu ne kële mooy Suhaylu seen mbir dana yomb séenoon na ku ñu wax Mikrasatu mu leen kee ab naafiq la duma wax ak moom mu seen ku ñuy wax Xolays mu leen kee xërëm yi la gëm génne leen gàtt yi waaw naka lañu yónnee Ousmane xamul dara ci usmaan ba rumeur yi ñëw gëmloo ko ne rey nañu usmaan ba jaayante bi bépp am ci kon moo lay xamal ni yonent bi sallallahu alayhi yàlla da koy déey léeg-léeg yàlla du ko déey su ko yàlla déeyee mu xam lépp su ko yàlla déeyul du xam dara beneen bi tey moom nubuwa ak risaala du bis bu ne da nga yenu déedéet du bis bu ne da nga yenu nekkub yonent rek da ngay am temps boo xamante nit dong nga war a takk jabar war a sëy war a lekk war a naan war a gëmmentu yooyu affaire nit la waaye bis boo xamante ne mission jot na nag yàlla ràngala mission bu boobaa qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya loolu rek ma wutaleeg yéen nit laa ne yéen waaye nag dañ may déey luñ leen dul déey ma kon léeg-léeg nga dégg ci pénc mi ab ustaaz duñ la may dara duñ la baal dara wala ab imaam duñ la may dara duñ la baal dara jàpp nañ ñoom imaam wala ab ustaaz wala ab sëriñ ñoom ci beneen continent la ñu nekk mais nit dong lañu ñu nag lu leen wutaleeg nit ñi mooy dañu am xam-xam waaye bu sa nit a ñëwee rek nit nga foofa il faut nit ñi wàccee seen tension ci ni nuy jàppee nituk diine ak nit fi ñuy teg nituk diine nit la dafa war a takki soxna day xiif day mar dañ koy liggéey dañ koy jàpp day siburu day soj day corona day dee comme nit ñi loolu ki ci mucc mooy sunu borom subhaanahu wa taala moo tax léeg-léeg àttee su xewee bu ñu àttee ustaas ba bu ñu àttee imaam ba bu ñu àttee sëriñ ga nañu àtte nit ka ak nit ak nit bu dikkalee nit dañu jàpp ne nite ga la ñuy àtte même bu ñu dee jubbanti nana jubbanti nite ga waaye ustaas yi bëgg xas lislaam bëgg xas xam-xam bëgg a xasaale ci ustaas yëpp wala sëriñ si wala imam yi loolu nag ëpp nay def ëpp nay def sang baa nga woog alayhi salaatu wassalaam Omar wax naa la ne léeg mu ne lii nga def nii ci yàlla la bàyyi ko wala sa xalaat la mu ni ko sama xalaat la mu ni ko man nii laa ko gisee waaye bu ne ci yàlla la bàyyi ko rek moom xam na yàlla du juum du jaawale danaan sama an wa dégg naa topp naa nangu naa waaw ak am solo <laughs> baarakallaa fikum kon nag yi fi àngoog ngay nekk nit nit rek ngay def nga nit ñett koy aye dañu ne ni nit jinne nit malaaka lu ci ne yàlla def ko moo ñaare ci nit mu ni jamono bu ngeen séenee nit muy julli aka woor aka wird di jàngal quraan aka sellal jàpp njaamuram di def tasbihaat jàppal ni kooku malaaka ko aye ndax loolu mooy matière bi malaaka am ci sa jëmm ji malaaka du lekk du naan du moy yàlla du xiif du gëmmentu laa yaasuna allah laa amarahum ci ndigalu suñu borom rek la ñu nekk duñ ko mooy mu ne nag bu ngeen séenee mooy mer di xulóob ba ci xonq coy mu tàng jër nga bu kurpañ mbaa mu yenow xeer di xaabar xaabar yi ñuy téye mu të ñu riir wuti riir wuti moroomu nitam ñaan jàppaleen ma du ma ko te ma rey ko daw laa yet yaa kurpañ jot ne jàppal na jinne ko ayee ndax jille jinne moo mel noonu waaw jinne moo mel noonu na seytaane yajri alal insaani majri dam seytaane yàllaa ko may pouvoir mu mën a solu nit de daw ci sa deret ji nu mel nekk ni sa ni deret ni sa deret ji daw ci sa yaram noonu la seytaane mel moo tax ñaari gis nga foo toog ci mbooloo léeg nga gis nit ku tàng jër jàppal ne de bu deen da ngeen def réunion am koo xam ne lu ngeen wax mu sotti ci kaani yi mun leen déggoo ak moom mun leen jàpp dara lu ngeen wax mu wow koŋ kenn lu ko ni diir bu mun kii ngeen tas jotaay bi ndax booba jinnee ko aye seytaane ko aye moo koy gonfle di ko fénq ci kaw nit ñi ñi muy gis ay dafa mel ni ay noon lay gis li muy dégg ñu mu koy déggee ak ni kay nit ki di waxe du nekk benn moo tax jullit rek moo am ngànnaay lu ko mën a musal ci loolu mooy aouzu billahi min asheytan rajim aouzu billahi min asheytan rajim booy lekk na nga musul ci seytaane booy naan na nga musul ci seytaane booy dugg ci oto na nga musul ci seytaane booy toog ci mbooloo na nga musul ci seytaane aouzu billahi min asheytan rajim yar la boo xamante ne boo ko waxee rek day mel na nga koy caw iblis day daw ko fekkee ci seen biir sa biir yaram noonu la léeg nga am doom ji jooy guddi jooy tàng jër jàngal auzu billahi mina shaytani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al jàng ayatul kursi di def ci bopp bi wala ngay nodd ci nopp yi waaw di nopp ci nopp yi di di ëf ndànk di tëfli waaw da ngay gis taw day dal bu fekkee dafa am lu duggoon ci moom day génn daw day mel na ndox mu tàng lañ ko sotti day daw waaw moo tax man la jullit rek moo am ngànnaay lu ko musal ci seytaane mais est-ce que ñun ñoo ngi koy jëfandikoo <laughs> bu fekkee ne ñun alxuraan ñun moom suñu diggante iblis moom daanaka ñun ñoo ñun ñoo ko soxla ñoo koy woo suñu biir ñoo koy woo yi mu bëgg yëpp ñoo ngi ci dégg naa sëriñ Tuubaa xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam dégg naa ñun foofu ci njaareem toog na ba yàgg dégg jenn waaye ju naan auzu billahi mina shaytaani rajim auzu billahi mina shaytaani rajim rajim sëñ bi dégg ko woolu ko ni ko looy wax mu ne ko damay musu ci seytaan rek mu ne ko da ngay bàyyi yëfam bàyyil yëfam koo bëgg a mucc ci moom dangay ngay bàyyi alalam mënoo jàpp iblis jàppi doomam jàpp alal bëggal ko ba pare di muslu ci moom du la bàyyi laa ilaha illallah seet tet tet tet quel enseignant wala quel enseignement kenn mësu koo gis yëf ngoog kon Suhayl ibnu Amr yonent bi sallallahu taala wa sallam na leen ma nga nale di ñëw waaye waa Quraysh bëgg nañu yéwénoo ak yéen ndax ba ñu yónnee ko mel na Suhayl kon nag jàpp leen ni léegi juba daal di am ena fa jaa Suhayl fa takallama tawilan ittafaqa ala qawaidi sulhi nee na Suhayl ñëw wax wax ju gudd ñoom nag ñu ngi mel ni géwél yi ñu daan yabal ci tooli xare yi bu benn buur musan bind leetar yónni ab géwélam ci moroomu buuram suy ñëw dañ koy teer mu mel ni buur kenn du ko dóor kenn du ko saaga kenn du wax ak moom wax di diis dañuy jàpp ni taqandeeru ki ñu war a jëflanteel moo ñëw léeg nga gis na géwél bu géwél ak personnalité war fasam fu dën bi solu ba mel ni jànjaar yi waaw xuus ci biir gawar gi xuus ci biir soldaar yi du leen sax faale parce que ki ka tax a jóg mooy moom day dama dem ba jàkkaarloog moom ñu ko jàkk ñu ko bóor <laughs> ndeysaan suñu mbokk ma leen ndeysaan ba fay artiste bu bu garaaw la te de mu joué ci rôle yu am solo macha allah loolu di ko di ko di ko dellu si dafay baax ndax dafay dafay dellu sunu ngar mi ak sunu càng macha allah loolu am na solo la moo tax ñu askan wii ñuy wax géwél eh, ku ci am jabar rek am nga am nga jabar ju baax ndax ay ñu ay noobal lañu ay noobal yu baax lañu yoo xam ni foo fekk géwél ak buur ak shérif ak sëriñ ñoo daan bokki dab ñooñ ñoo daan nawlonte géwél piir lu buur di bañ da koy bañ lu sangam di bañ da koy bañ mukk ci àdduna doo gis mukk géwél bu daw baarakallaahu kon nañu ciy ndokkee suñu géwél yëpp leen ziyaara di leen ñaanal kooruk jàmm baarakallaahu eh, seen taxawaay rafet na ci réew mi lépp lu xew ñoom la ñu njëkk a gis ci télévision bi muy communicateur traditionnel ñu joxe ay communiqué yu am solo yu riche yoo xam ne nii ah wax dëgg yàlla dekkal ngeen seen cosaani maam eh, te noonu la fi maam yi nekkee woon amul kenn ku musaan dem te doo ànd ak géwél amul sëriñ amul buur amul nit ku tekki amul kenn kuy dem te doo ànd ak géwél kon baarakallaahu ñu ngi leen di ndokkeel bu baax muñ leen rek lay koor gi jeex macha allah kon nañu teg foofu sunu baaram ñaanal leen jàmm ak xéewal eh, yal na yàlla yokk sutura say xéewal geeg man gi eh, di gërëmaat sunu sponsor yi bu baax a baax a baax ñaanal leen jàmm eh, ca kanam tuuti oustaz Alioune Sall mooy ñëw jël toogu gi def tafsiru quran bi muy def ci koor gi sëñ Mbacke Sylla dana ñëw léegi ci kanam tuuti incha allah ci xamtu bu guddee dinaa ànd ak alimu dinaa ànd ak pap dinaa ànd ak Alioune Ndiaye ñëw ci wàllu gunge koor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala